jërëjëf euh, Pape Cheikh ñu ngi sant bu wér. Mhm. di tàmbalee ci euh, nuyu ak ziyaare Cheikh Sidil Muxtaar. yàlla na fi yàgg te na fi yàgg te mhm. ndax lii ñuy naal di ko waaj. Mhm. ñaanam ndigalam ak soññeem moo tax euh, ndam yi mi ngi tegaloo. te xam nañ ne du sunu ngóora waaye ndimbalam la. xam nga mbir bu fekkente ne dañ la dimbali. Euh, da ngay jiital cant yi ndax yàlla suñu borom dafa wax ne boo santee ñu dolli la waaye doomu aadama moom rek mënul dara ku euh, euh, li sëñ Abdou Khadir mu baax mi daan wax jàmbaar amul ku ñu dimbali moo am loolu dafa baax ndax ingratitude yàlla bëgg ko mooy yaakaar ne doon nga dara Seydina Jibril yàlla suñu borom mës na mës na ko yónni ci kaw suuf ne ko demal ci kaw suuf nga xoolal ma loo xam ne yaa ko gën mhm. Seydina Jibril ñëw ci suuf yéegaat day na yàlla man gënuma kenn ndax moom dafay jëmm joo xam ne malayka la boo xam ne dañ ko daan yabal sax ci yonent yi mu leen di formé kon ku ku ku matale la waaye bi mu ñëwee delluwaat suñu borom ne ko demaatal seetal ma loo xam ne yaa ko gën mu ñëw gis benn meddu benn medd moo xamante ne bàyyi ma bu boo xam ne dafa medd mhm. mu jàpp ne xëj na lii moom la suñu boroom bëgg a wax. mu koy yóbbu waaye ba muy dem ba bëgg a jege asamaan yi. xelam dalul mu wàccewaat ko. macha allah mu bàyyi ko. ñu mhm. demee suñu borom ne ko daal ay la loo xam ne. Mhm. maa ko gën. Mhm. suñu borom ne ko am na loo doon waaj a indi waaye boo ko indi woon ma fa ma effacé sa tur. ci pays suñu borom. ndax ngëneel newul ci kenn kenn warul xool kenn ne. maa la gën maa gën wallaahi. ndax Iblis yàlla suñu borom ba mu koy rëbb di ko dàq dafa jàppoon ne. moo gën suñu maam Adama looloo ko looloo ko looloo ko dal. waaye moom fépp fu ñu taxaw ci kaw suuf nee nañ su joon na fa jaamu na fa yàlla. kon defe naa loolu lay ubbee kon ñuy sant ci ne ngóor newul ci lii nga xam ne am nañ ko. ci ci ci réussite fi mu toll. waaye ndimbalal yàlla ak barkeb Serigne Touba. moom la ñu am ak ñaanuk Cheikh Sidi Mokhtar. macha ñu koy sant bu wér. Mhm. di sant njabootu Serigne Touba gépp mhm. tàmbalee ko ci sëñ Mamadou Mountakha. nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi. Mhm. Euh, moom ba ñu yëkkatee bisi rek. Mhm. defe naa ci kanam bokk na ci éléments yi nga xam ne. dinañ ko teg mhm. moom yamul ci. Euh, engagé wu mhm. waaye daf ko wax dafa def une déclaration wax ak àdduna sépp ne ñetti fan yi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ñu ngi koy wootee ci dakaar ku ma soxla foofu la may fekk Dakar la may fekk loolu muy lu rëy nag euh, sëñ Cheikh Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadre di porte parole di xalif daal di woo presse bi def déclaration wax ne bis bi du loo xam ne Hizbut Tarqiyyah moo ko moom waaye yoonu murit yëpp ko bokk waaye tamit l'islam yëpp ko loolu moo tax démarche inclusive bi doon loo xam ne daf ñuy permettre ñu ndax dafa am loo xam ne héritage colonial la mooy ñu naan kii ci tarixa sangam la bokk kii ci tarixa sangam la bokk mu mel ni c'est une barrière confrérique cette barrière dafa dañ ko érigé woon pour que l'islam jullit ñi bañ a yeewu ak baña doon benn ndax bu ñu doonee benn Euh, kenn bañ a gis sa morom lenn lu dul xam ne euh, plateforme commune bi ñoo ko bokk. benn jullit boo xam ne moom moromam. am na ñaari kaaba yu jublu amul. Mhm. benn la benn la ñaari alxuraan amul. benn yonent lañ yor. fa yàlla gi benn la suñu julli yi tamit benn la. fa yàlla suñu borom benn donc. Euh, naan tarixa sangam wala tarixa sangam sëñ Sidi Moxtaar li mu wax. Mhm. nee mi ngi digal murit yëpp. Mhm. di digal tijaan di digal xaadir ñëpp ñu xam ne. Mhm. genn njaboot lañu. macha allah lislaam moo mooy li nga xam ne. mooy buum gi ñu liggéey. loolu tamit ma ciy profité di wane ne bis yi ñuy waajal. ci loolu lañ ko inscrire. la preuve kilifa yi nga xam ne seere nañu wax ci. ni may tegee waxi sëñ Sidi Mokhtar. teg waxi sëñ Cheikh Bass wala sëñ Mountakha. noonu lay tegee waxi sëñ Abdoul Aziz Sy euh, sëñ Abdoul Aziz Sy. al amin al amin porte muy nga xamante ne ku ne xam ne ne. ku baax ki xëyam gontam. yëngatum yëpp ci lislaam rek la ak lu boole jullit ñi loolu tamit dafa am solo pour ñu xam ne. Euh, ni ma ko mën a tënkee waxi sëñ Tuubaa waxoon ne xat fakka kab la xat bas sa fad la fa durru wala wana fu jaay nee na yàlla suñu borom dindi na gàllankoor yi gàllankoor yi den na dañ na dolli na may yi lor tamit dindi na ko dañ na xéewal tamit sax na du dootu fi jóge kon jërëjëf sëñ Touba voilà kon loolu laay ubbee samay kàddu rek di sant ñëpp nag euh, waa TFM mhm. di leen sant ndax euh, sëñ mu mhm. ngi remercier bu baax Euh, euh, patron président Youssou Ndour mm-hmm. ndax toog nañu mu mm-hmm. wane ne mm-hmm. bëgg nañu am partenariat pour waajal bis yi macha allah loolu kon ñu ngi ko ci sant di sant équipe bi yëpp ndax ñëpp wane nañ ci ne ba mu joxee ndigal dañ ci dañ dañ dañ cee dañ ko nangu te jëfe ko waaw kon ñu ngi leen di sant bu wér li ci des defe naa bu ñëwee ci biir présenté bis yi ak liñ ci waajal dina gën a mën a ñëw en détail macha allah jërëjëf sëñ Youssoufa Diop euh, sëñ Assane ñu ngi lay nuyu itam di la ndokkeel bu baax ñetti bis la yoo xamee ni Euh, jàpp ñu ko au hasard muy le 16 le 17 ak le 18 juillet. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala euh, man bis yi dinaa si ñëw waaye dama bëggoon tàmbali ci mhm. xasida bi nu fi jàng parce que boo xoolee xam nga il y a des signes mhm. et des signes intérieurs mhm. xasida bi sëñ bi mu ngi ko tuddee yaa rahmaanu yaa rahim le tout clément le tout miséricordieux mu yàlla suñu borom mhm. dafa wax ne suñ ko dee jàng fu koy jàngee il y a un apaisement intérieur mhm. il y a en fait il y a un adoucissement des tensions mhm. il y a un de l'intérieur loolu mooy waral nit ki di sentir dara ci moom ba du ko mën a expliquer waaye day ànd ak dal. loolu moo ñu dal waaw loolu moo dal ñëpp fii nag. waaw ku ko expliquer ak ku ko ñàkk expliquer. loolu nag maanaam dafa bokk ci xar baax yàlla yi tudd kàddu yàlla. Mhm. xasida yëpp boo ci jël rek mi ngi tàbbi ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah boo ci mënta jël. ca loolu la tàbbi mhm. donc jour yi nag li tax jëluñu ko c'est pas au hasard mooy dafa am lu mu bëgg a fàttali mooy sëñ bu mag bi c'est vrai que euh, c'est par rapport ak. Euh, Euh, anniversaire u 40 ans Hizbut Tarqiyyah mais ñu ne 40 ans yi le responsable moral sëñ Atou Diagne daal di wax ni euh, euh, nous ne sommes pas dans la logique de célébration d'anniversaire parce que amul amul sens mm. dans le fond mm-hmm. mais c'est un rappel historique qui nous mène vers une reconnaissance mm-hmm. divine mm-hmm. kon nag nañ ko jagleel Serigne Touba waaye dafa mat a fàttali c'est certes trois jours waaye am na lu mat a fàttali historiquement parlant sëñ bi bi mu nekkee bi mu jógee Mbàkke Kaj euh, Mbàkke Baari mhm. jaar jeewal jaar Louga dem Ndar mhm. ñu indi ko Dakar mhm. bi ko indee Dakar dañ ko ko dans les tentatives du du pouvoir colonial de liquidation physique dañ ko dugal ci benn chambre injecté ko de gaz et de pic et de pointe pour le liquider. mu nekk foofa waaye digg mag yàlla moom rus na def nit lu ñaaw ndax ni mu ndax ni mu bëggee nit ñi jariñu daal sëriñ bi sëriñ bi nekk foofa ci ay fitna waaye fitna yi moom mu ngi ko jàppe jaamu yàlla mhm. di ci sant yàlla waaye teewul nag de façon physique on sent la douleur moo tax mu ne isa zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa tasbita taarat ila al jihaadi bil nafsi walakin zabba an nil Chaque fois que je me souviens de cette nuit, de, de, de, de, cette, de cet agent colonial, entre guillemets, mm -hmm. de l'indécence, mm -hmm. de la douleur, de l'épreuve, j'ai tout de suite des envies guerrières, de recours aux armes. Mm -hmm. Mais l'intercesseur me l'interdit. net sama sama sama xel day bëgg jëm ci naa jël ngànnaay pour xeex su ah. ma fàttali ko ñetti gudd yooyu mm-hmm. waaye nee na yonent bi saa sam ne ko jaru ko ne ko jaru ko. wallaay jaru jàmm rek. ah ñetti guddi yooyu nag bu ñëwaatee fii ñu xam ne ne jaru ko woon. Mhm. moo tax ñu defaat ñetti guddi yeneen. Mhm. pas forcément par rapport à ça mais c'est un rappel historique qui a un sens. donc su ñëwee nag. Mhm. danañ jàng alxuraan ba mu kawe. wallaahi. danañ jàng xasaay yóbbu ko fa mu gën a kawe. danañ jërëjëfe sëñ Tuubaa ba nit ñi xam ne jaamu yàlla wóor. wallaahi waaye te loolu mën nga ko def. te doo gaañ doo xeex doo tuur deret doo lor jàmbur.